moo la def nii mbay. waaw daf ma fekk ma taxaw rek mu dóor ma. kan la comme sax ku ñu wax Fallou Ngabou. Fallou Ngabou mais loolu fan la woon exactement mbay. fii place Ba Ndiaye xaritu Ba moo tax sax mooy yow da nga ko da nga wala da nga toog rek jékki-jékki. mu dóor ma dóor ma wan li soxor fépp la am kenn xamul lan la mu toog rek mu dóor ma ak arrêt sama xamoon xam nga sama gisoo yëpp hôpital kii lañ ma bindal sax nii. Mhm. mais moom danga nga ko xam yéen ñaar da ngeen mës a am relation. wala mës a am relation boobu boobu boobu kan ak kan fa nekkoon. boobu gaa yëpp a ay ñoom Baye Mbaye ay ñoom Ndiob Baye. ñoom seen yëpp. gaaw ba ku muy àndal moom. Baye Ndiaye àndal. Mhm. Mhm. léegi yow dem nga ci yoon. yow dem naa si yoon waaw. déposer sa plainte. léegi lu la yoon may nga jël wala da ngay bàyyi mu sedd. non lu ma yoon may nga jël. Mhm. parce que lii kenn xamul lan la tamit su ma jekkoo daf may rey. Mhm. su ma jekkoo daf may rey parce que coow dafa bëri si man fan mhm. kenn xamul daf ma jàppal kenn xamul lan. jékki rek. jug song la néegi quoi moom mhm. ko. ok ok ok